depuis le première cent yi ba léegi ñi ngi yëngatu di dox ak wax ak état bi bu ngeen xoolee sax ci mois de avril bi defoon nañ ci arrêt de production mais lépp loo nga xëy ni tënkan nañ ko ak état bi la ca waroon a génne état bi ko koo siiwal état bi dafa dàq loolu ndax prix bi nga xam ni moom lañ gis boulanger yi gisan 1 virgule 17 état bi gisan 0,95 nangu la appliqué prix yooyu moo tax boulangerie yi fi mu ne ci jamono bi ñu toll bind nañ ministre bi yëgal ko ko bi ñu jëkkee taxaw dafa tombé woon ak muy soog a toog bi nu premier ministre dalalee mu jël engagement ci kanamam ñu jëleen dalee trois mois ñi mu jën ko wàcc ba ci deux mois defee benn protocole d'accord ñu yaakaar ne protocole d'accord boobu buñ saytoo ba pare lu ca génne état bi dana ko jëfe mais depuis 18 juin ba léegi état bi xam na la nga xam ne moo fa génne mais nangu ko jëfe moo tax fi mu ne comme wax nañ dégguñu ñu bind nanguwuñu noonu tontu moo tax ci RBS ak ñi mu àndal ñëpp d'accord nañ ci la 27 ak le 28 ak le 29 dañuy taxaw te taxaw boobu fii amuñu liñ bëgg mois bu toll date boobu bu jotee dañuy taxaw te du ñàkk yeneen yoo nga xam ne itam dinañ ko boole ci biir